They will feel connection. Yeah, yeah, ok noonu lay uh, demee ok ma la uh, salaam salaam yaa ngi am Teuf Connection comme ni mu leen waxee sànq ok boo heure bu baax bi Euh, couleur urbaine yaa koy am tous les dimanches à partir de 15 heures euh, jusqu'à 16 heures sur la meilleure des bandes fréquence ok accompagné de votre meilleur DJ ok that's real hip hop ok comme ni ma leen ko waxee euh, tey dama benn supandaanaan ok supandaanaan laa koy wax parce que tamit jeune la bu nga xam ne mi ngi ci game bi gëm boppam moo ko tax mi ngi dëkk Pekes mais mi évoluer évoluer town ok gëm bagage yi loolu ko tax mu dem Dakar pour gën gëstu bagage yi tax mu doon sama invité tey muy MC xës euh, ma dalal ko euh, àndaana euh, mu wax ñu moom mooy kan mu wax ñu moom mooy kan lu waral turu MC xës bi ok loolu yëpp dinañ gën a yaatal ci couleur urbaine antana yóbbu micro mu ñu ñu dalal ko xës. waaw. ok. waaw xës moom benn rapport la boo xam si ni teel naa gëm affaire bi quoi. Hmm. te nekkul leen loo xam si ni. dinaa si génn quoi. Mm. parce que dugg naa ci te mënu ma see génn quoi. Mm. hip hop moom nekk na loo xam boo ci xasee dugg moom virus la quoi. Mm. c' est ça loolu la quoi. ok dafa leer euh, dafa leer tamit euh, mën nañu wax que ni euh, say début say début pekes la. ok mais dama bëggoon xam réelement comme par exemple bu naan sa jaar-jaar sa jaar-jaar ba xam. sa dëkk la foofu nga njëkkee def musique. wala wala lan wala mën nga ñoo wax xës ak rab na la fa demee. waaw waaw man man njukki laa dëkk njoox laa dëkk dëgg-dëgg quoi. Mm. mais pekes ak njukki ak njoox benn la quoi. Mm. c'est ça. léegi mais njox moom fa laa juddoo dëgg-dëgg quoi. Hmm. yow maa ngi siyaar sama gars yëpp paa leen famille xam nga siyaar ñëpp quoi. Hmm. affaire bi moom dama see nekk te mu am naa gars yoo xam maa ñoom ñoo si nekkandoo. Hmm. ñi koy wax ku kuru def doom quoi. lil wasa ak big moom. siyaare naa leen képp. ñooñu fan lañ basé ñooñu nga tudd noonu. fan lañ basé ñu ngi ñu ngi ñi ngi njukki. njukki lañ nekk. kon mën nañu wax que ni say début foofu la euh, mën nañu wax que ni say début foofu la Euh, wala wala na la fa demee wala da nga nekk foofu benn instant bu nga xam ne da nga nekk si musique bi jóge foofu euh, nga nga nga dem wala foofu nga toog ba benn instant nga ne war ngaa mën a génn euh, wala lan. non daa fekk may may génn nag quoi daa fekk may génn di dem Dakar mais après dama dikk fekk la ñuy def hip hop affaire bi neex ma quoi. Mm. ma dikk xam nga bokk quoi lii moom adhéré loo si groupe bi. Mm. mais la moo waral xës comme par exemple xës. xës naam bi tur bi Cheikh Fall la. Mm. yemaan ah ok da nga da nga ko jël nga transformé ko comme gars yi ni ñu waxee rek euh, Cheikh mooy xës voilà ok euh, noonu lay demee mais euh, ba tey li mu bëggoon xam mooy comme par exemple say say début ba xam ñooñu nga doon àndal ñooñu nga doon àndal si dëkk ba di def musique ba léegi ñoom ña nga fa wala wala da nga leen fa bàyyi instant bi def carrière solo wala na la fa demee waaw ba léegi ñoom ñi ngi fa ñi ngi fa ba léegi maa si crew bi waaw kii kenn ki sama rakk la. Hmm. kenn ki sama rakk la mais xam nga rek magam laa doon àndal quoi. Hmm. waaw mais bàyyiwuma leen benn yoon quoi. mais bëggoon naa xam tamit lan moo waral comme par exemple teewaay bi euh, euh, comme par exemple yaa ngi dakaar Dakar am nay euh, rajo yi fa nekk lan moo tax nga préféré nga ni da ngay ñëw ngaay nan la fa demee nan la fa demee sa connexion ak ak ak Teuf Connection nan la fa demee ba nga ni da ngay ñëw nga def émission rajo. waaw princesse moo tax ma xam la quoi. Hmm. moo tax ma ñëw fii quoi. Hmm. te moom dama koy bëggee. Hmm. ok ku ne prince euh, ku ne prince mooy parlement ok euh, euh, élégance ok moo koy bëggee di ko ziar bu bëri ok sama réel bro ok moom mi ngi def ay preuve am fii nii ci diwaanu Ngaye Mekhe muy jeune bu nga xam ne gëm na boppam noonu lay demee léegi yow après nga ñëw nga teew si studio bi lan moo ko waral da nga da instant yi da nga teg projet wala lan wala réellement lan la quoi parce hmm. que maa ngi ak projet mi step quoi. mën naa ne la am na loo xam si dugg na am na loo xam dugalaguñ ko quoi. Mm-hmm. waaw mais saa ni moom ñi ko def temp temp pour dugal ko te bëgg nañoo génn loo xam si ni bu ko nit ñi dégloo dañu xam ne carrément kii kat li taxoon mu nekk si job bi quoi. Mm-hmm. waaw mais comme par exemple tam c'est pas évident yaa ngi dëkk sa dëkk. Euh, euh, maanaam Pekes léegi nga jógee foofu noonu nga dem nga ni da ngay imposer wu Dakar parce que tamit euh, temps Dakar dafa doon dëkk bu nga xam ne dafa yaatu de telle sorte que tamit am nay artistes yu mag yu fa nekk léegi yow sa lëkkaloo sa lënkaloo ak ñoom nan la fa demee maanaam mm, nga jógee sa dëkk nga ñëw pour imposer wu connexion beeg yooyu noonu nan la fa demee. non war na mën a nekk quoi. Hmm. war na maa mën a jóge sama site dem Dakar teewal ko fa. am fa la fa gars yi am quoi parce que kenn moomu ko mais est que début bi méttiwul comme par exemple yow boo ñëwee si benn zone bu nga xam ni ña fa xam euh, bëriwul te tamit euh, euh, ñoom système bi nuy doxalee tamit mën naa am dina xaw a am ay kii tuuti daal dina xaw a am jafe-jafe tuuti léegi yow nan la fa demee nga ñëw nga nga ñëw pour nga imposer wu am ay connexion wala yooyu noonu daal. waaw métti na méttiwul parce que man moom nitu nit ñi laa quoi. Mm. nit ñi ñoo ma seen bopp. Mm. loolu la quoi nit ñi ñoo ma bëggal seen bopp te dama leen sant di gërëm ñëpp quoi. Mm. du ma bàyyi kenn quoi. Mm. parce que man moom ku xam xës rek xam ni xam nitu nit ñi la quoi. Mm. waaw noonu la métti woon na nag début bi ma ci nekk di buux di buux ba yàlla def ma xam studio yi di fa dem naa di job. affaire yooyu quoi mais nag yàqalu ma sama job ah. man maa ngi sama job laa gën a favoriser sax. liggéeyam bi quoi. ok kon mën nañu wax que ni euh, xës euh, topp rab bi rek à rab bi am na jobu euh, boppam sa sa job la à bi. waaw man damay job man ci pot de fleur laa nekk ci tool yi quoi affaire yooyu. Hmm. waaw maa ngi bëgg ay Maadou Ndiaye waal yi ñoom ñëpp. bàyyiwuma hmm. kenn gars waa waa place bi quoi. Hmm. kon yow kon yow euh, bokkoo ñi nga xam ni bon comme dañ ni Uh, rab rek laay def si rab rek laay évoluer uh, fongaam loo ko uh, booleel wala lan mais am na ñoo xam dañuy topp rab bi maanaam bu doon seen carrière rek maanaam duñ ko booleeg leen kon yow bokkoo ko loolu daal yow yow yow yow li nga gëm mooy que da nga da ngay def musique en même temps nga am loo ko boole wale waaw waaw mën na nekk parce mm. que temps bi ko gars yi jox sax man naa ne man mu ko joxoon moom kon waxatuñ ko quoi. Mm. heure fekk na maa ngi si kaw. Hmm. parce que gars yi dañ ko def liggéey quoi mais hmm. man defuma ko liggéey. Hmm. taxul ma indi liggéey quoi. ok mais comme par exemple tamit boo ko defee liggéey euh, tamit parce que yaa ngi ci léegi yow boo demee ba comme par exemple ni carrière ñëw carrière ñëw mooy maanaam nit ñi commencé laa xam euh, tamit euh, nga commencé am succès yooyu tamit parce que boo demee ba nga xëcc la carrément que tamit rab bi commencé dugal xaalis yow est ce que tamit du xaw a maanaam est ce que du la xëcc carrément nga féete nga féetewu si 100 pour cent. waaw xam nga pour man rap moom daanaka li ci ëpp li ci ëpp ngay dem ay concert yenn yi ay guddi la quoi. Mm. xam nga. Mm. te benn jour la lay mën a yàqal. Mm. wala deux jours quoi. ok mais comme par exemple xam nga mën nga dem ba ci biir nga commencé nga signé ak benn label. waaw ah. léegi yow dans ce cas là label ngay liggéeyal. te boo xasee ba signé ak label comme par exemple ni production beeg yooyu bind texte yeeg. yooy léegi nga commencé saturé dem ay concert wala yeneen ak yeneen nga commencé voyager foofu noonu la say carrière commencé foofu lay sa carrière euh, commencé maanaam euh, carrément que nga signé ak benn maison de production là dans ce cas là moomatoo sa bopp côté boobu laay waxee. mais ak suñ job quoi. Hmm. mu yoo am suñ demee ba gis ni game bi li mu ñuy fay moo ëpp li suñ job di fay quoi. Hmm. mën nañoo topp game bi. Hmm. bu si bàyyi quoi. parce que ñun dañ koy wër quoi. c'est ok léegi Adja dañuy jox euh, euh, first euh, track bu xës after ma bàyyi auditeurs yi nga xam ne instant bi ñu ngi déglu nga FM 93.5 après ñu décorté ko ñu ñu ñu ñu waxtaan sam léegi dañuy jox first track bu la neexee tamit ah. dara fa le nekk seen problème. tuura fenk na bawal kon da dawal dawal da samay vaam la may dawal dawal faram fàcce kalaama ko ci fi may fréquenté foofu la barma musoo dégg ma ni baal ma cimetière yi ci laay fréquenté xoolee ma ngool a kanté qualité ma gënal quantité ngay laaj xaat koor lay rap musoo ma gis ma aj sama mégo di rap sama risi la bul ba ñëw di xat ndax maa nga ci weeru koor gënoo ma ñime dee ndax dama te koor maraba gembi be koor maraba gembi de koor xam naa ni mar nga bañ te fa ma fekk maa ngi ree ndax dama bari jàmm noonu bul ma bàyyi ndax damay géey nan ma songu ndax ma bari liggéey rabbi aw ma ci maas te yaa wudda wut de màppandoo suma rabee ñëpp màppandoo ma nekk dameel sosolinu màmba yow def doom el cap wala nekk seen problème nga mel ni cokk yow leave Tokyo. So clean, so fresh to my Tokyo. Tell you my work every time, no what touch you. If you die, get a little leg, snow. Then I talk of it again, be man, my job be down. I've been here, being a river, I'm on Nago down. You only got the tower, what I'm on a just a town. Some I got bar, and no cook comes a town. I've been here, being a river, I'm on Nago down. You only got the tower, what I'm on a just a town. Death, don't man, my man. Yeah follow like a problem. program. Damn Tom El Cabel, I'm a good dollar, follow like a sand program. Damn Tom El Cabel, follow like a sand program. Damn Tom El Cabel, I'm a good dollar, Okay, the jaay tànk ci kaw suuf kon yàgg yàgg nekk ñun dañu xàlli yoon bu leer loo tëj ci ñu dajji ndax dañu yàgg taxaw kon si teewal rab ko nekkul di tër ay diilu seelu fis ba léegi coow jibul kon xeexal rab bu jaree daaf dawal ma paaka ci put taxaw ci teen bi rotal seen bi lu public bi yëgul kon boo ajee ñu ay digul la jaaxal yoon a suuf ñun mucc nan ci yéen ni asamaan bu cee ci mag bi gisul rëccu ngeen yéen ñi bëggoon ñu dee ci pax bi fi ni waxee sori foog aji job lu leer talent bi fay soxlawul mbëgu xaj yi ñun sunu yoon a yàgg xaar fekk bu ñu topp xaj yi la ñoo ngi ñëw yan nga tent ñu ndax li ci kanam rawul bët te ndam li bettu ñoo ah. def doom el kaabe fa la nekk seen problème def doom el kaabe rab ko ñu dara fa la nekk seen problème def doom el kaabe fa la nekk seen problème your dollar for the niggas problem. Yeah, no lay that for real forever. Euh, ça se passe sur la meilleure des bandes fréquence 93.5 euh, Ngaye FM ok son boobu ngeen doon dégg sama invité moo ko woy euh, xës léegi sound bi bon kii léegi dama bëgg nga tàllal ko comme par exemple nga def live vandaa rek nga may ko auditeurs yi nga xam ne instant bi ñu déglu couleur urbaine vandaa rek nga balancé wu da déewul dafa làqatu da fenk na bawal kon da dawal dawal da samay rhyme la may dawal dawal fàcce galaama ko ci fi may fréquenté foofu ma gis ma aj sama mego di rap sama di sila bul ma ñoo di xaar ma ngi ci wéru koor gënoo ma ñima dé ndax dama tek koor ma rabba gembi be koor ma rabba gembi dé koor xam naa ni man rek bañ te fo ma fekk oh. ma ngi dé ndax dama allo dañ mi na nga def bëgg rek euh, expliquer affaire dem non lolu lolu c'est juste da nga bëgg wone ben comportement ci gembi lolu nonu doonul yow sa euh, jikko wala lan exactement dem loolu la hmm. parce que xës mom ko xam xam ne du tox quoi hmm. weeru koor moom moo koy wax loolu ay punchline la quoi. Mm. c'est euh, dafa leer dafa leer mais tam par exemple tam texte bi. Euh, bi nga koy bind euh, ñàkkul am na loo visé. wala genre formule pour nga ñëw imposer wala tam genre da nga ñëw pour tiital ñeneen ñi fi nekk wala lan exactement wala genre style da nga ñëw pour imposer wu daal. non de question ñëw pour tiital gars yi wala ma ñëw pour ne lii damay. ñu bëri dañuy ñëw ñu ni real real rap laay def classique laay def comme ni ma ko waxee woon sama beneen invité bi fi ñëwoon suba nga jékki-jékki leen dégg leen ci ay trap wala wala afrobeat euh, wala yeneen ak yeneen wala wala comme par exemple ñeneen dañ naan sama originalité euh, lii la suba euh, du bet kenn bu ñu déggee MC Xeuss muy def rek wala yeneen ak yeneen. mais est ce que tamit boobaa du am comme par exemple sa public sa public est ce que du leen xaw a touché comme par exemple ñi nga xam ni dañoo gëm MC Xeuss si style de musique bi muy def est ce que tamit ñooñu benn instant tamit doo dem ba xaw leen a perdre wala wala wala wala yow comme par exemple da nga dugg si musique selon que yow li nga gëm wala selon sa public li mu gëm wala lan exactement. xam nga wax message la taxoon quoi. Hmm. man lu may rab lépp rek ay message laay laay joxe quoi hmm. xam nga léegi nag su ma demoon tey jii ba jékki-jékki di def trap damay def trap sax hmm. parce que damay def trap la hmm. son yi ma dugal studio trap la waaw mais mais instant bi ni comme par exemple ni euh, amul leen lu nga xam ni bon dencal nga ko couleur urbaine ak euh, teuf connection ak instant bi yi nga xam ni ñu ngi déglu couleur urbaine nga may ñu ko live and direct benn style sans pour autant ma tegal instrumental nga nga nga nga doore style bi waaw man la bàyyi xasinaay par numéro 10 li ma leen tega 10 yan bi dafa 10 dinañ ko teg fu ko ñëpp di gis rab ngi leen di tiis naqar la dina indi li ngay jaay da bëgg te li ngay jaay dugg nu melomaan bi bëgg la mais rab bi dugg la classe nga xës da dugg nga si naay për la dugg nga ba du yanu xam na lu bopp attan mandi nga xës da bi dis na mais da daf ko attan ci atam te mosoo dégg booy bi dafa nagam mais rama yónni yaakamti ma faa dox ko fu ndox bi daanta boo demee fekk fa tepp tepp ñu jën a régime nañu def tekk tekk yé maa ngi ci nga fm freestyle di teg impro bay doma an ma li dëgg la teg freestyle di prime si yaa ngi ne fis nigga di gën a neex yow man di dëgg fis rap freestyle di improve nigga check check microphone bi la ñuy teg nigga maa ngi nii di signé naa pro man di dëgg la fa maa ngi siyaare sama gars yëpp nigga bàyyiwuma kenn cat ba chat man di dëgg di freestyle di check na ma gë bay dama get dama ten cap ten nigga rap freestyle di impro di check nigga fis nigga jëru sax ñi leen di jaajëfal du ma fël di leen jaajëfal nigga maa ngi nii jëru sax ma lay joxe loxo rhyme si di teg nigga maa ngi bëtt di dem di jàll di dem fis dooma tee nigga Nous ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle, d'où que cela puisse mm, venir. Et le minimum d'indépendance de pensée, indépendance d'action, euh, se réalise par euh, le devoir de dire aussi ce que nous pensons de l'aide que quelqu'un. Yo nigga xës kenn bu tax lan may déggu jaat indi leen ma MCC jama bande bande lu da park aan baby déggul aan ala accu lo da never give up dema bigger, fuck sa real nigga fuck sa real fake maa ngi gis bul ma ñoo de chance expérience la nu ngoo de baagu tel bi ndomba tel bi kapp tel bi bandi gambi. fuck ngay ñaan temps du ma ñaan temps benn minute rek ma touch sa temps fuck sa temps sama gang amul fake I real nigga ñoo fay frek seen bandi yëpp ci man la ñuy muslu seen bind kaar maa képp ci man la ñuy gëstu du ma dox di gëstu kenn du ma dox ginnaaw ndaxte bandi laa te aw ma baatu ginnaaw mais du ma tuuti deltu ginnaaw benn kuur rek nga daj suuf màgget làmp tàkke seen làmp gërë yëpp fayda maa ko taal pop xaat nekku ci tëwa ju rey du ci feew xaat ko ci xol la ne war naa ne mi ngi si man nekkee di duul foog di yaasi ne kick la may doon da dungo koron booy ñu dëkk di jooy noon baa ngi siñ ma dëkk xàll yoon bu leer yéen a ngi la dem de maa ngi si leer keroog naaja mënunu bokk bokk yaa ngi dëkkee di wax may dëkkee joow sama gaal di dem ku nekk xañ nga ci jëm la bra ci kaw door la riin ci suuf door la kóol ci nopp mu saf la talaatay ndeer liir mi saf la sa leeru guddi te weer bi deewagul de boy bi tan da fit la te géemagul no jéemu nu sama talaa ma ngemb rab yi ma ko liggéey ma indi liggéey te teewul ma indi liggéey گل خپی سبت نخال خوابی گیت لساری لال جمو یک یک یک بیساری لال duma dox di gestu ke duma doxe ginnaaw ndaxte bandi laa te aw ma baatu ginnaaw mais duma tusti deltu ginnaaw benn kuur rek nga dajji suuf maget lapp tàgge seen lamp gërë yëpp fayda maa ko taal ok euh, noonu lay demee sur la meilleure des bandes fréquence 93.5 nga FM accompagné de votre meilleur DJ euh, Teuf Connection euh, képp ku bëgg képp ku bëgg dugg live en direct mën nga composé 88 628 16 50 ok noonu lay demee nga jokkoo ak Teuf Connection comme ni mu leen ko waxee tey dama am ñaari suppa ndaanaan MC Xës mi ngi nii dend ak man ak El Hadj mi ngi nii door a yegg si noonu lay demee. ma dalal leen sànq bon danoo tegoon sànq deuxième euh, track bu MC Xeuss léegi Xeuss sound bi ñu jot a dégg noonu dama bëgg nga leeralal ko ñi nga xam ne sant bi ñu ngi déglu couleur urbaine euh, ñu xam lan nga wax ci son bi ak yan message nga ci bëgg a jàllale. ok am na ku nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. Waly hmm. Waly Waly. waaw hmm. ah, vraiment fi ñu xool sa boobu nag nga tegu moom yal na la yàlla jëmale kanam rek. Ah. amiin nga wax séer séeru Madou boo bu ko fi indi quoi. waaw Madou. <laughs> teg ko foofu rek. ah leen ma yëpp ko dégg incha allah. nekk bokk nekk leen noonu lay demee ñu jaajëfal euh, ki dugg euh, noona ñu koy jaajëfal bu baax léegi sa sound bi ñu jot euh, teg noon comme ni ma ko waxee sànq nga expliqué ko ñi nga xam ne sànq bi ñu ngi bon ñu ngi lay déglu. waaw sound boobu dañ ko job ci ay temps bu yàggul. Hmm. mooy suñ première sound. mais job bi yàggul. Mm. te maanaa ne la def nañ ci loo xam si ne dafa jafe quoi. Mm. amul répétition. Mm. ok euh, noonu lay noonu lay demee noonu lay euh, noonu lay demee euh, ba tey ñu ànd ak yéen ki doon wax sànq noonu MC xës la léegi instant yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi lay déglu nga leeral la leen kii bu sound boobu. waaw sound boobu dañ ko job ci ay temps yàggul quoi. parce que naa ne la lépp daal. luñ ci répété amul quoi. Hmm. parce que mbir bi dafa nekk loo xam si ne dañoo jikki jékki rek def ko quoi parce que boobu maa ngi temps hmm. gars yi ñu ngi ñu ngi fii side hmm. mais répétition amul kon xam nga. ok mais tamit li nga wax tamit euh, xaw na kii tuuti comme par exemple nii euh, nee nga sound bi répété wu da nga ñëw rek nga prise ko noonu est-ce que tamit sa yeneen texte yi tamit noonu lay demee par par exemple ba xam da lay ñëwal noonu rek nga ñëw automatiquement nga kii ko wala wala lan. non du démé nonu hmm. parce que yenen sang man koy job hmm. man koy jobal sama bop quoi hmm. parce que euh, affaire bi sang bi mom boy ko diglo amul ben fo taxaw nan bi sang bi fot amna ci wala nangam ak naaw ci lepp carré na tam jafa lañ jaf ci ay boy yo xamne doga démarrer premier sound quoi ok est ce que tam mën nga jël ben couple nga ñamal ko gaay nga xamne sang bi euh, ñi ngi déglu xeus ñu xam que ni limuy def nekul ci tatoné lu mën la wala yeah man man na acha man na acha acha yeah man yeah some guy yi di get freestyle the impro tojal sa gat maa ngi rap the freestyle the emperor the check maa chinga FM color it maa ngi ci tough connection. bandi dëgg la boy taaf taaf bandi dëgg boy ma tumu door la gone. freestyle the impro check microphone be man la xës boy dama senior pro ndomba ten cap capitaine la nigga bandi dëgg la boy fis dama bëgg get ram she detect nigga maa ngi ci Ngaye FM koñ ko banda FM 93 point 5 FM bandi dëgg la boy na ma ahem pré rap la dëgg maa ngi nii di sama loxo ram si di flow di teg maa ngi nii di jàkkaarloog da ñetti gaayam ram si di teg flow yi di gën di graaw man di dëgg fu ma fële booy ñëpp di ma jaajëfal respect bi dina egsi booy ni mbàkke ak faaleen man di dëgg la par rap di teg ni nga faal la ma sant wéer rap la dëgg boy. fa ma sant fa ma jóge ñëpp xam fa ma jóge man di dëgg la faal Okay, that's real hip hop. Okay, ça se passe sur la main de Bande Fréquence 93.5 Ngai